kan moom Tapha Tine. combat la. proposé nañ. non ba léegi moom laa lay nii ba léegi kenn proposé ñu gars ñoo bëgg nii rek mais kenn ñëwul nag wax dëgg yàlla ne dañoo bëgg combat Sa Thiès ak Tapha Tine mais loolu combat bu neex la njar mi. combat loolu. laa loolu rek ah, nga yow de. Tapha ñaar ñu mujj bëre ñëpp dañ a damm. non damm waa am daam ñuy damm am ñoom doo leen damm nag. Tapha Tine bu fàttali woon ba muy bëreeg moom ñëpp da leen nàccal tuur leen ay kaaw ñii ñu sotteeku deret ba mu ñëwee ak man nan la demee. mais mais Mbaar Damm. mais mais Mbaar Damm Mbaar Damm kii. du damm ndax booyam la du ko damm. waaw moom kay nee moom kay amul booy moom moom làmm moom bu duggee ci kii booy bi dafa mënut a damm booy bi. wóolu nga qualité yi Sa Thiès ci Tapha. non bien sûr Sa Thiès xaaral bëgg na li muy def te en fait gis nga làmb li am solo mooy bëgg li ngay def te Sa bëgg na li muy def ci làmb te xale la boo xamante ne bu am ambition la actuellement ni may xëyoo bu tegu ci yoon la bu am kilifa la Sa Thiès ba woon ak léegi Sa bi du benn parce que lépp dañ koy teg ci yoon lépp dañ koy teg fi mu war a tegu waxtaan fi mu war a waxu mu ger lu mu war a gère kon jàpp naa ne Sa beneen Sa Thiès boo xam ne bu bu confortable la waaw bu bu nekk ci jàmm la. demoon ñu ne dafa demoon faj blessure am wér na de. waaw léegi mu ngi sant yàlla mu ngi sant yàlla bu baax. nee nañ dafa bëri woon ak blessure bi ko am. waaw làmm xaama na munoo même ba ci footballeur bi sax sport munoo ko bëri bañ a bëri ak blessure sorte bi day metti wala mu bañ metti léeg nga dëgër bopp nag loolu day am mais làmm munoo ko bañ bëri ak blessure parce que la ngay def la yaa ngi yenn poids yaa ngi contact yaa ngi boxe léeg-léeg dem ba sa loxo yii yii yëpp ay yàqu yii ñuy rëq doo mën a jàpp yii sa tànk yi mooy loolu moo ñoo ànd quoi mais waaw sport sport bi dafa ànd ak accident chaque jour jàppal ne mun nga cee gaañ waaw moo tax làmb risque la góor la koy def góor yàlla. góor yàlla koy def le 18 juin incha allahu rabbi ñaari góor yàlla danañ ko def le 18 sa poulain. waaw Youssou Ndour mu ngi Mor Kankang. waaw waaw ah, borom kàlla ma la def 11 victoire nag. boobu dafa nekk ci yoonam tan nangu ngeen ko koy yàqal lan nga nar a ànd Youssou <laughs> waaw moom moo dëgg yàlla nag ci maa ngi maa ngi leen di encourager ñoom ñaar parce que ay jeunes lañu ay xale lañu yoo xamante ne wax dëgg yàlla làmb leen soxla bëgg nañ làmb ñoom ñu àgg fu ñu fu ñu fu donc yoon la yàlla jàppale leen ñu ngi ñaan yàlla suñu borom jàppale leen ñoom ñaar ñëpp moo Kang Kang champion la ñëpp xam nañu champion la dëgg yàlla bëreem neex na amul temps waaye Youssou tamit ah sama sama yuusu la yuusu sama yuusu la sama doom la sama xarit la maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndam lu guy parce que aussi moom yàgg na ci ci ci ci ci yoon bi te dafa war a dépasser niveau bu mu war a nekk carrément te ñoo ngi koy ñaan yàlla yàlla joxal ko ndam bu seddu guy guy guy xam nañ ne champion la mbër la dafa may faay yu koy manqué sécurité ñu ñoo koy rectifier pour que incha allah mu war a jàkkaarloo mu kànkam ah, moom daan ko. wax nga ne Mor bërëm amul temps ku booy bërëm boo xam bërëm amul temps nooy def waaw non loolu daa amul secret loolu loolu amul problème usu ñun xam nañ xam nañ qualité am parce que bëgguñu di wax ay qualité am bëgguñu di wax qualité am waaye qualité ci làmb loo xalaat da koy bëree <laughs> da koy bëree mbër toll na ko fu ne muy def ay affaire am ah mais saan nga combat mag moo kii comment ça s'appelle ba bëri na ñu muy daan ñoo xamante ne da nga naan yus wul bi tiku parce que ñun loolu Mor Kankang di bëri yaakaar naa ci ñun la ci ñun la ñun ci ñun ñoo ko bokk na daal waaw bokk na ci ñun ñi ko njëkk a génnee donc ba tax na daal yàlla baax na. Kara Dollé daa mel ni la. Boy Seydi <laughs> ma sonal Kara booy géej waay la sama waay la nit ku baax la nit ku sincère ci nitam nit ku koo xamante dafa bëgg Balla Gaye dégg loolu kenn werante wu moom xam na loolu man xam naa loolu ay mbokkam xam nañ ko Alioune euh, Alioune euh, Boy Seye 2 moom yàlla moo dogal tey ndeysaan mu nekk sama nit nekk nit ku baax fu ma gis jox ma cër respecté ma nuyu ma man delloo ko ko ñuy waxtaan ci lu bari parce que gis nga làmb dafa boo xamante ne da soxla waxtaan da ngay soxla ay xel da ngay soxla ay xalaat dafay demee te ñoo ñëpp jàmm laa sekk am na ñeneen ñoo xamante ne sekk ñoom jàmm ñu maam xam nga ñoom ñëpp sumay waay lañ mbëri ndaw yu ci bëri du ma sax mbëri ndaw mbëri ci bëri bokk samay xarit lañ samay waay lañ parce que dama koy nangu parce que tamit nit ku nekk bu la soppee ba bëgg la rek am na ci ci qualité yu ma soppee ba bëgg donc ba tax na daal maa ngi gërëm suma mag Abdou Aziz maa ngi ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wax di ko wax aussi yàlla na ko yàlla may am xolu muñ ci waajuram bi nga xamante ne génn na àdduna parce que Aziz ba mu ko xamee ba léegi xam naa ne ndeysaan c'est la première fois ma gis ko mu jooy di waxtaan ci papaam ba jooy te xam naa ne ku nit gënu koo dëgër seede yàlla nit gënu koo dëgër ci àdduna comme bu demee ñàkk na loo xamante ne lu saxoon ci xol lu deewoon ci xolam muy li mu bëgg te xamoon naa diggante ba papaam Baye Ndiaye noonu aussi tamit donc maa ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla may xolu ci barke Yonent bi sallallahu alayhi Fallou Fall maa ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm. doomu ndey petit promoteur. doomu ndey petit maa ngi lay siyaare di la bëggee di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm tool ak mboolem jullit maa ngi euh, gërëm Serigne Diour. Hmm, Pape waaw waaw. Serigne <laughs> <laughs> sama fils sama doom la. Ah, ak Pape Arona ah ak Tony Tony Ndiago ak groupe bi yëpp ah maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm Mbaye Diop Talla Meng Modou Fall Simon ak Omar ah, maa ngi koy bëggee. ñoom ñëpp maa ngi parce que jàmm laa sekk jàmm la ñuy waxtaan di ñaanal suma école de lutte yàlla dafa leen jàmm fii sa bàll yàlla na yàlla def moom combat combat bu yàqu may ndam Malick Gakou 2 yàlla na xam nga donc ñoom ñëpp daal yàlla ñoom combat ñoo ko yàlla ne leen ndam ci barke Yonent bi salaay salaam di leen remercier ndigal noonu parce que samay booy lañu sumay xarit lañ sumay lépp lañ di leen wax ne rek gis naa yéene bu ñoom ci man ndeysaan parce que ay nit la ñoom ñu sincère lañu. Hmm? kon njaag njaag zoo maa ngi lay nuyu maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bu ma limee dinaa juum Samba bee bu ma limee dinaa juum maa ngi leen di sant leen gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaanal fi ma dëkk muy géejuwaay yàlla defal leen jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp ñëpp jàmm di nuyu Sa di nuyu famille làmb di nuyu njabootu làmb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 yomb